ma rakk dafa amoon ak justice problème ma dem di ko assister kii nu mu tudd ci tribunal bi ma dégg may nag ma daje fa ak benn waay bi nga xamante ne nii moom tamit dafa ne ku mu dénkoon bitigam dañ ko ñoo fekk si boutique bi muy toox ay affaire drogue daal ñu di tox ñu ñu jàpp ko léegi moom tamit kooku la ñëw assister ba pare moom mu ne Belgique la jóge noonu booy bi da ko bett xam nga expliquer problème am man ma expliquer sama problème xam nga ma ma am si moom confiance et tout yooyu ndek ci waa ji dóorkat bu mag la maa ngi dëkk ndar ma ne ko laay kon de tey waa ndar ndar yi moom ñoo fi am problème ñoo fi daje ñoo fi am problème am nañ sax benn maison bu nekk Almadi dañ ci dañ fay def ay exposition ak yooyu noonu soo amee jon mun nga ñëw euh, xool ak yooyu noonu léegi bi bi génnee di ñibbi mu daal man sax sama oto dafa paan fële ne la ci ginnaaw sama oto dama am sama oto mais dafa paan foofu noonu moo tax xam naa damay kii ma ne ko man de yor ma oto mais taxi laay jël mën naa la yóbbaale ba ne la mu ne ma non non damay dox ba foofu rek xool ndax réparé nañ ko wala de man ma jël taxi daal di ñibbi ci suba si ñu joxante ay numéro si suba si teel mu daal di may woo ne ma man euh, greffier am naa yow sa sa booy bi sa euh, rakk bi ki ko jàpp ki fi dossier wam nekk ak yooyu noonu xam naa kii bi bu baax xam naa. Euh, ki fa nekk bu baax ak yooyu noonu ko ma ne ko ah mu ne ma waa léegi mu daan ne ma mais nag xam nga dafa am nag ni ñu man waxtaan ak moom léegi xam nga rek fii moom Sénégal da boo jë neexalee affaire yooyu da ngay da ngay da ngay dañuy dañ dañ say dossier dañ koy gaaw a liiwal ba ci yàgg heure añ jot mu ne mu ne mu ne fii nag am na benn ndar-ndar bu fiy togg ceeb bu neex nañ dem foofu ñu lekki léegi ñu dem foofu daal di añ ba pare le temps pause bi di jeex ñi daal di ñi daal di añ foofu moom tam mu daal di fay añ bi ak yooyu ma ne ko noonu bàyyi ma fay mu daal di fay ak yooyu mu ne ma non garaawul yëpp sama sœur nga yooyu noonu léegi nag greffier bi nag moom pour ñu gis ko dañ koy jox cinquante mille francs ma ne ko ah mu ne ma waa ma ko léegi garaawul léegi dang may yóbbu ba këram yow xam nga këram danga may yóbbu ba këram léegi mu noppi foofu waxatul dara waxatul dara ñu nekk foofu toute la journée ba ci daal am na luñ doon wax ay affaire oto ak yooyu noonu mu daal ma mu daal di may wan benn oto <laughs> benn ranch ranch river la ma wan bu rafet bu weex mooy bi bu bi bi di ñuul noonu la ma wan ne ma yow bii de moom xam naa ne boo ci duggee moom ak yooyu noonu ba def sa cheveux ak yooyu noonu xam naa ne moom dina rafet ma ne ko ah mu ma waaw mu ne ma mën nag dañ ma koo mayoon rek Suisse sama benn paa tubaab moom ko mayoon Suisse mais affaire bi daal. léegi yow bu fekkee ne bëgg nga ko dama la koy bazarde ak yooyu noonu daal di wax man tamit maa ngi espérer kontaan bay bëgg di <laughs> laale wat naan laa ilaha illallah lii de moom xéewal la ma ko man tamit da man xam nga ay man moom même oto bi bu fekkee man mënuma la ko fay cash nii mais am na Sénégal fii ay biens yi nga xamante ne nii dañ euh, chaque mois dinaa dinaa ci am dara léegi yow bu fekkoon dama la jox benn somme bi léegi nag li ci des dañ koy traite buñ koy traite nga xamante ne man dama lay jox par mois bu nekk euh, mu compte mun nañ la virer sa compte li nga xamante ne moom lañ koy traite mu daan na waaw amul problème ak yooyu noonu tam ma daal koy commencé expliquer sama commerce comme quoi que ni bu may ñëw fii damay indi lii damay indi laa damay indi jasneer ak affaire yooyu noonu am na ay marchandises yu xam yu bëri dama koy indaale mu daan ma waaw exactement yow am nga ay jasneer ma ko faaw moom fen moom desal naa ay jasneer ma daane ma waa léegi yow bu subaa booy ñëw nga indaale ko comme si xam naa ne xaalis génnu te wax naa ko sama ay man tamit samay liggéey ak yooyu noonu ma daane si suba si may ñëw ma indaaleel ko ñaari douze mètres jesner mais maa man am naa si moom jaa confiance bi nga xamante ne nii mënuma la mënuma la ko wax comme dama ko xam ay at yooyu daal xam nga ak ndar-ndar bi mu wax ak yooyu ba pare. mu ne man mu ne day ut kii pour permis pour seet sama rakk bi ak yooyu noonu man daal <laughs> jaaree ma benn façon boo xam ne mënuma la ko sax wax léegi euh, ma jox ko léegi ma jox ko xaalis bi fi ma ko joxee fi ma ko joxe noonu jesneer yi rek mu daal di woote benn gel daal léegi benn gel woo ko bi mu ko woowee ñoom ñaar ñuy commencé wax mu naan ko non virement bi dugg naag duggul ak yooyu affaire yooyu man après mu daal di coupé gel bi woote waat di waxaat ay waxu xaalis ak yooyu noonu après coupé ba ci yàgg léegi man may dem ma maa ngi xaar pour mu fay ma samay gestionnaire léegi man may dem moom mu naan ne ma. Euh, man daal ki ma doon xaar ba sànq ba tey ñëwul kon garaawul am problème néew léegi jesneer yóbbu ko bu subaa booy ñëw nga indaale xaalis bi man nag du ma ne xam naa ne waa ji daf ma def dara wala dara confiance rek laa daal confiance boo xamante ne daf ma inspiré nit nit nit bu sérieux daal mais du ndekete yoo mooy doorkat yi nga xamante ne dañuy ñëw ay cox bi loolu la ma waaj a def mu mujjee yóbbu sama jës neer yi yëpp léegi nag bi may wan oto bi nga xam ne moom moom moom la ma bëggoon jaay ci Facebook am foofu laa jàppee si Facebook am mi ngi tudd mi ngi mi ngi fa tudd xëcc xëcc la fa fa def mais boo duggee da gis mu def foofu ay oto ay ay marque oto yu bëri. Euh, ba pare daa di fay def tamit ay or daa di fay def ay affaire daal yoo xamante ne da ngay foog kii vraiment nit ku jaay ay carte la businessman la. xam nga man tamit nag mais bi ma defee loolu ma xëy suba dem tribunal ma toog ba ay trois heures ak yooyu noonu di lijjanti sama raq bi gisuma ko ma woo ko téléphone numéro bi du dem su ma ko woowee numéro bi ma toog deux jours di ko woo. jotuma ko téléphone mais rek sama xel daw nag bi may woon oto boobu noonu ranch bi ma daal di ma daal dem récupérer ay photo ci Facebook am bi ma récupérer ay photo ci Facebook am daal di koy bàyyil message vocal ne ko yow wax ko daal comme quoi que ni récupérer naa sa ay photo ak affaire yooyu noonu boo ma indilul kii dinaa la lii rek mu bloqué ma xam naa mu dem liir message bi après mu bole bloqué ma mais avant mu may bloqué nag gis naa euh, jël naa kiiwam jël naa photo yeeg yooyu noonu yëpp léegi nag bi ma demee mm, di expliquer euh, ki yor sama dossier rakk bi affaire bi sax si laa xam ne moom Cheikh Mbacke Diaw lu tudd ndeket moom mi ngi tudd si carte bi mi ngi bind Cheikh Mbacke jaw la tudd ci carte d'identité bi moom mooy turam dëgg mais ci Facebook am mi ngi fa bind xëch xëch la fa la fa la fa tudd waa ji ñuul la nii gàtt récupéré naa ay photo photo yi après dinaa la ko envoyé léegi nii tamit. yàggu ma woon Sénégal yóbbu sama bagage mais pas pas pour que ne lim ma lim ma yóbbul moo tax may wax. mais dama bëgg ñeneen ñi tamit pour bu ñu amee ay problème ak yooyu tribunal ñu xam naka la ñuy waxee ak ku ñuy dugganteel ak ku ñuy liiwal. da yow dañ lay fekk nga jaaxle xam nga ñuy waxtaan ak yow bëgg la soulager la ba nga foogoon kër ba nga mais mais mais mais loolu taxu leen jóg leneen moom